altiné bi nga xamante ne passé ay boru ñett heure ci fajar ci la ay samba boy yo xamante ne dañoo gànnaay woon ñëw daal di attaquer station ODK bi nga xamante boy génn Saint-Louis passé université ci ngay dal ci li gën a nak ci ki bi ci euh, attaque bobu. moy dañoo defe ne banque bi la samba boo yooyu bëggoon attaqué waaye mujj ñu woon mën a dugg ci bërëb boobu ndax dafa tëju woon ci noonu lañu turne jubal ci EDK bi ba ñu ñëwee jot nañ dajji boutique bi ba dugg ca biir pare ci loolu daldi génn dem ci pompe yi pour sol essence ndaxte dañoo sàccoon nag benn oto ca quartier boobu ñuy wax Ngalel balaa ñoo dem ca station ba ci guddi gi am na benn gardien boo xamante ne nag moom jotoon na làqatu ca biir station ba ca la daal di woo gendarme yi ñooñu daal di yegsi ci nu mu gën a gaawee ba ñu yegsee aussi samba yooyu daal sox seen kaw gendarme yi aussi riposté di jéem a wër nan lañ leen di arrêté daal di tiire ci seen pneu ya ci noonu ñu taxaw ba ñaari pëne ca kanam tojee daal daw dugg ci mbooy bi ci biir soxante boobu nag am na kenn ci sàmbaaboo yi bi nga xamante ne benn bal da jam na ko ba mu dafa mujj gaañu ñun gendarmerie ñu ngi ñaan ñépp ñi nga xamante ne ñooy population yi ñu coopérer ak li nga xamante ne mooy force de défense et de sécurité pour ñu gën a mën a aar dëkk bi gendarme yooyu nga xamante ne nag ñoom ñoo intervenir ñu ngi leen di jaajëfal ndax courage bi nga xamante ne moom lañu àndal ak pas-pas bi ba mën a yegsi ci délai yu néew ba mën a saafara nit ñooñu nga xamante ne ñu ngi woon ci njàqare enquête bi nag mu ngi dox yoonam ñu ngi wër pour jéem a gis ñi nga xamante ne ñoom ñoo jote rëcc Till now.